asalaamaaleykum mbooloo mi yéen ñëpp maa leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam te di leen di mastaw ci toogaay bi dëpp yéen a ngi toog te ku nekk xam na ne jigéen heure bi war na ko fekk ci këram waaye Mouhamed jaral na ma ma déplacé wu ñëw ba fii waaw parce que dafa jóg pour jàppale président Macky Sall. ñun tamit ñu yor benn mouvement boo xamante ne nii. dañuy wër ñi nga xamante ne nii dañuy jàppale président. toog si seen gox. te ñi fi teewal président jotelewuñ li nga xamante ne moom la leen président jox. te ku xam président Macky xam na mu ngi liggéey. président Macky mais liggéey ñi nga xamante ne ñoo ko nekkal ci terrain bi. li ñu war a def defuñu ko. li ñun nag dañoo jóg pour ànd ak moom. di ko jàppale ci terrain bi di ko liggéeyal. di jël suñu doole di def ci moom. parce que nit ki soo ko bëggee da ngay jël sa di def ci moom. waaye it dafay laaj boo koy jàppale mu xam ne diw mii mu ngi may jàppale. boobu ba léegi nag ñu ngi sur le terrain di koy jàppale. frustré yi nga xamante ne ñëpp bàyyi woon nañ fexe nañu récupérer leen. waaye lépp waaye lépp ak suñuy doole bopp. parce que ñi nga xamante nii ñoom la jël def ko def leen ci terrain bi. ñoom seen jëmmu bopp lañ war a def defuñu ko. li ñu war a joxe joxewuñ ko. te ku xam président xam ne lépp lu mu yore bokk na ko askan bi. Marème Faye Sall li muy def ñëpp a bët. li muy def ñëpp a ngi ciy teg bët. te te la majeure partie. ñi nga xamante ne ñu ngi bëgg président Macky Sall. président Macky fay Marième moo tax. Marième Faye Sall moo tax. jëmmam jee moo tax. ñun nag def nañ président ci suñu xol. boobu léegi ñu ngi ànd ak moom ci suñu xol. di ko jàppale jot na nag mu gëstu askan bi te ñi nga xamante ne jël na ay moyens jox leen ko pour ñu liggéey. nit ñi nañu ñi mu responsabiliser nañu ubbi seen téléphone yi. nañuy recevoir nit ñi. loolu la leen président sant. mais loolu defeewuñu ko. ñun nag loolu moo ñu tax a jóg pour ñu jàppale président li koy falaat nag. lii falaat président mu xool ñi mu yebal ci terrain bi wax ak ñoom téere ndax askan bi bañu ñu ko de ñi mu jiital ñooñu lañ bëggul voilà loolu mooy wax léegi nag Mouhamed mii nii nag mu Mouhamed mii damay tënk wax ji dama lay woon ne dañuy ànd ak yow ba fin ak waa Touba yëpp li ngeen bëgg ñun ñoo ngi seen ginnaaw gisuñ président waaye nag gëstu askan bi ñi mu teg sur le terrain na leen fi dindi te xool ñii liggéey mu ànd ak ñoom waaw ma gërëm naa leen sant naa leen sant naa leen yéen ñëpp jërëjëf